aca jërë ngeen jëf comme nu nañ leen ziare waat leen bu baax amaat mbégte ak kontaante jàkkaarloowaat ak yéen comme saa su nekk nu ñu koy defee ci wasaare ak si waa Dakar midi comme ni ngeen koy gisee nag ñu ngi fii si Liberté 6 di waxtaanee lan li nga xamante ne ni temps yi lëmbe na jamono juñ toll ni muy insécurité bi nga xam ne xew na ci réew mi reyante bi bëri na ñun nag comme ñun waa wasaare ak ñun waa Dakar midi xew-xew bu am dañuy daal di wàcc si terrain bi giseek askan bi daal di waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu joxe seen xalaat ndax kat dama koy faral di wax seen mbégte mooy suñu nga xamante ne ni moo di Abou Boy bu gàtt bi fas yéene nag gisee ak askan bi daal di waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu wax seen xalaat ndax jotul tey euh, waa Sénégal indiwaat li nga xamante ne ni moo di pen de mort ku rey ñu rey la ndax ràññee nañu ko fi mu nekk ni rayante bi bëri na lool lool lool Abou sama caméraman bi bu baaxee rek ma daal di dugg si biir marché bi gisee gars yi fas waxtaan ak ñoom Alsaan Alsaan tey ñuy waxtaane li nga xamante ni moo di insécurité bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci réew mi jamono ñu toll nii lan nga xalaat ne loolu moo ko indi. mais insécurité bi moom ndoo réew moom bu ndoolee ñaar dafay bari day bari agression day bari jigéen yu jaay seen bopp parce que ndóol moo ko waral gis nga ñun Sénégal amuñu problème réew mu neex yor la parce que bariwuñ. mais suñu état yi ñoo ñoo ñu dimbaliwul quoi jeunesse bi tey am nañ ambition pour liggéey mais mais état bi moo ñu dimbaliwul ci côté bu baree bari insécurité bi bëri na man ci bale bi laa dëkk damay gis loo xam ne damay yéemu violence yu garaaw ngay gis soo duggee ci biis yi ay violence dafay am insécurité yi rey yi yooyu dafa doy waar da ngay yow da ngay toog ba ak sax nga ni ñun ban Sénégal lañ nekk ak ni Sénégal meloon ay jamono ak léegi jam nit agressé nit yooyu daf fi bëri xam nga assemblée nationale nga gis violence yi fay am ñuy xeex saagante nday président assemblée toog naan da ngeen di fen di saaga yooyu yëpp di am ci dëkk bi bon te jeunesse bi ngeen wàll gépp bon nañ nañ na ma yàlla baal quoi nañ ma baal quoi mais ñu si baree bare ay kopp lañ quoi lu ñëw rek da leen di yóbbu quoi ak phénomène yi am léegi lu xew Europe. xew yeneen dëkk yi fët fët mu ñëw Sénégal xam nga ñu jël ko quoi tendance bi affaire yooyu quoi daf ñu sonal quoi il faut ñu delluwaat ci suñu cosaan xam ñun ñooy kan ay sénégalais lañ ay de ay sénégalais lañ ay bañkat lañ dañoo am ay maam yoo xam ne dañoo bañoon ba Sénégal tollu fii il faut jeunes yi xamaat seen bopp. mais yi ngay gis nii yëpp boo gisee góor jigéen yi ci dëkk bi actuellement nii lobby yi affaire yu bëree bëri mais ndool gu ëpp gi moo ko indi rek ah fii ñu bëri yor nañ seen i métier mais fayuñu la man maa ngi suma métier mais gis nga maa ngi ci maa ngi fii di taxale waaw maa ngi taaba taaba parce que dañ lay liggéeyloo duñ la fay. ah waaw insécurité bi nag ni ma ko jàngatee mooy nekk ni gone yi léegi daanaka dañoo yaroo seen sago dañ nekk ñi nga xamante ni bii maanaam base ba ñu amoon moo fi réer guddi yi ñu toll nii moo tax xale yi léegi lu leen neex la ñuy def noonu daal laa ko gisee waaw loolu daal laa gis ne que ni buñ ci jógoon delloowaat xale yi ci yar yar mu njëkk ma. delloowaat leen tegaat leen ci yoon bu baax mi moom mooy dindi insécurité bi fi nekk jamono ji ñu toll nii daal. Abdourahmane tey ñuy waxtaane li nga xamante ni moo di insécurité bi nga xamante ne nii nemmeeku nañu ko ci euh, Sénégal jamono ñu toll nii ñu bëggoon xam rek yow lan nga xalaat ka ne loolu moo ko waral. waaw affaire insécurité moom vraiment nekk na loo xam ne ni fii Sénégal fi mu toll nii dafa violent trop bëri na trop parce que boo xoolee fi mu toll nii rayante yi bëri na et puis coow yi bëri na. te kenn mënul comprendre mais xëy na bu ma génnee ci sama jàngatu bopp mën naa ne manque de l'éducation la quoi. parce que xëy na rôle parental ci la bokk parce que déjà bu doon eh, à bas âge éduqué nañ nit ñi normal kon xëy na du demee neen nii mais nag euh, xëy na nañ sant yàlla aussi tey moytu te it di wax ne nit ki eh, gaaw a tàng xol ak gaaw a xët mer xët-xët yooyu amul njëriñ. Mbaye tey ñuy waxtaane li nga xamante ne ni ràññ euh, nemmeeku nañu ko ci Sénégal maanaam reyante bu bëri bi nga xamante ne ni xew na yow lan nga jàpp ne loolu moo ko sabab. non reyante bu bëri pour man ñàk gu miti la rek ak euh, série film yi ñuy seetaan ni comme as euh, comme yi ñuy seetaan 19h à 23 euh, yooyu nag li koy gën a joué yooyu ci la bokk parce que film yooyu amul lenn application benn bu buñ ci wane bu baax waaw bu baax mu amu ci vraiment parce que bu njëkk ba bi daan seetaan théâtre ay ñoom Babou Faye ñoom Makhoro Diagué affaire yooyu dañ la daan jox courage xam nga mais yii moom affaire war lan lay digal doxaan rayante affaire alal quoi te alal moom moog droga yem ku ko gëmit rayante bi bëri waaw. parce que tey jii am na ñoo xam ne nii bu bu ñuy rey du ñu ànd ak seen sago torog beeg sangara seeg waaw euh, buñ fi indi woon daal peine de yaakaar naa rey bi dina dina dina dina arrêté waaw. parce que nit koo xam ne deful la dara yaayam ak papaam yaakaar ko nga jël ko ray ko si noonu mu perte ah yow nga yegale sa dund nga tudd nga tëdd benn benn benn dix ans génn. Hmm? nekk si sa dund léegi moom léegi après ay waajuram ñàkk ko loolu métti na loolu métti na trop waaw man de wax dëgg yàlla ak yonent bi ñu fi indi woon peine de mort kon ray bi dina fa jeex dina fa jóge. ah man de man de dama joom mi franchement sama xol bi dafa jeex tàkk rey yi bëri na léegi te lépp ma éducation bi rek la loolu la dañ leen éduqué wul éducation bi man la man man sama xalaat bu gàtt laa lool laa jàpp ne looloo ko indi parce que ñu bëri bu ñuy rey nit duñu ànd ak seen sago. te xam nga ku tiim nii di ko jam ay jam yu bëri ça veut dire que àndul ak donc man éducation bi éducation de base bi daal man dama jàpp ne loolu la quoi man loolu laa ko jàpp franchement. ah insécurité bi ah doy na waa trop waaw parce que ñàq liggéey rek parce que ku xëy suba bu ngoon jot di liggéey moom yaakaar naa ne doo tal leneen soo wàccee dem tëdd nelaw rek ngay tal waaw insécurité moom yaakaar naa xale yi ñàkk liggéey rek amuñ luñ def ñoom loolu yëpp si la si ko waral si la bokk quoi. waaw. kon daal bu ma déggee ci say biir yi wax maanaam parents yi nga dut li nga xamante ne moo di baaraamu tuuma. non pourtant pas parents yi parents yi sax ñi ngi def li ñu mën mais daanaka jamono ji moo toll fu nga xamante ne bii xale yi maanaam léegi dañuy dem ak seen yëg-yëgu bopp maanaam li rek moom la ñuy def léegi kër yi kenn mënut ca kenn ndax parents yi amatuñu daanaka. mais tamit am na éducation de base bu nga xamante ni moom lañ daan def ci xale yi looloo waral tey tey jii nii loolu moo fi nekkatut moo waral tey jii li fi am nii jamono ñu toll nii daal noonu laa ko jàngatee. non parents yi ñu ngi yar mais sa doom bu la euh, sa doom buy def naka su noonu doo ko yëg waaw buy def naka su noonu doo ko yëg bu génnee di fooy doo ko yëg fi muy fekkaan doo ko xam ñu ngi yar mais peine de bi ma la wax fépp ñëwut raay bi dina continuer il faut il faut ñu indi peine de waaw man Baye Fall laa waaw man suñ Moustapha Diagne mooy sama sëriñ moom boo demee dëgg la lay wax euh, képp nga xam ne nii jox nga si moom lim lay njëkk a mooy yàmba ak sàngara lépp lu nga xam day tàggoo sa sago dalay dala ko dala koy aaye waaw. non parents yi moom d' ñoo ñu bëri démissionné nañu parents yi ñu bëri dañoo démissionné mais loolu lépp lu ko indi mooy ñàkk rek parce que man tey béykat la man sama baay da daan béy samay maam doon béy mais man maa ngi nii nangu ma béy léegi man est-ce que samay doom ëllëg lan la war a mën a dund ba man sama papa da daan béy ñun ñu dund ci euh, at ak genn wàll presque parce que dañ doon dem ba dugub yi dañuy fekkante ci yi. comprendre gerte gi bon sama yaay bu demaan ci luuma yi day jënd keccax bu doy gejj ñëw xam nga teg bu defee dañ ciy dund nice mais léegi bëgg nañ petit pois bëgg nañ macaroni bëgg nañ spaghetti bon bëgg nañ yàpp bu duuf affaire yooyu man sa papa daan jël xar daan jël xar ci gétt gi wala bëy ñu rey ko ñu lekk ci benn fan toogaat deux mois trois mois mu defaat noonu waaw. waaw d'une part am na waajur yoo xamante ne defuñu leen war seen doom seen doom d'autre part am na ñoo xamante ne mbedd bi leen moo leen di yar da nga yar sa doom ba mu màgg comprendre nga nga yow nga nga foog ne yow lu lépp def ko alors que dafa génn mbedd bi yar ko loolu tamit am na da nga sa doom ba mu màgg mu génn fréquentation yu bon waaw c'est ça xam nga mu nekk ay délinquant yu bëri loolu la yu bëri dañuy dañuy dañuy yaru yaroo seen kër génn am ay fréquentation yu bon xam nga commencé dugg si yenn détails yi franchement. non parents yi waaw parents yi yaratuñ te xale yi tamit léegi amatuñ yar parce que booy léegi am nañ fit am nañ fit goo xam ne mooy loolu. parents yi tamit dëgg la tamit parents yi parents yi da ngay gis parent boo xam ne tamit mën na yar dorom def si lu mu si war a def yëpp mu génn mbedd mi yàqu ko loolu yëpp tamit daf siy joué waaw doy na waa trop moom waaw. waaw mais parents yu bëri dañoo démissionné parce que bu fekkente ni yow. Euh, sa salaire demeewul noonu nga yor ñaari doom yu jigéen yor ñaari doom yu góor en plus da ngaa luye yor ñaari néeg ñetti néeg war ko fay mais est-ce que yar bi war di nga ko def xam nga yàlla rek moo la mën a li nga am jëkkër nga am jabar joo xamante ni moo jabaru bañkat la mu dimbali la ci lool mais boo amee jabar ju xaw oyof tuuti tuuti tuuti rek say doom moom bon mooy loolu parce que actuellement nii boo gisee boo estaat tasee booy agressé ay doomu ay doomu jàmbur lañ yaa ngi dégg wax ji guddi gi jigéen ñi ngay gis ñu jaay seen bopp ci rii bi dañoo am ndey dañoo am baay xamul ma la kum doon sa sago boo juree sa doom da nga koy jàngal mu nekk ci condition yu baax mais ndool gu ëpp moo indi loolu moo waral parents yi yar gi ñu waroon a yar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënatuñ ko quoi. noo est-ce que jotul ñu indiwaat moom peine dafa yàgg. parce que man waaw ànd naa ci dafa yàgg parce que peine maanaam tëj la ba nga dee dafa dafa yeex parce que rey nit moom fi la fi nga reyee nit ki. sa parce que man ça fait 15 pays en Afrique am na cas yu bëri dama koy gis gis naa ko toog naa ko ñu rey nit ka ko rey ñu jàpp ko rey ko ci kanam tëral leen ñoom ñaari néew xam nga kon loolu dafa war a mën a nekk. man dama cee ànd. parce que bu ñu rayoon ñaari nit ñetti nit ñu ñi gis ko rek daan wàññi loolu quoi daan limité loolu. waaw parce que mooy atte l'islam waaw parce que tey jii nii état ak l'islam benn la sax waaw parce que li ñuy aaye l'islam da koy aaye euh, yamba nga xam ne day tàggalu sagalu euh, état da koy aaye l'islam da koy aaye sangara état da koy aaye am na am na milieu yoo xam ne dañ koy aaye foofu mais l'islam da ko aaye. kon li jëfandikoo man yaakaar naa loolu moo tax rey gi bëri mais bu ñu fi ni woon peine de mort yaakaar naa ne rey dina jeex. waaw affaire peine de mort nag peine de mort dafa xaw a diis parce que bu dee ku rey ñu rey la dina nekk loo xam ne nii mën naa ne dina wàññeeku mais aussi tamit bu ñu xoo bu ñu jéemee toléré ñu ñu jéem a xool eh, man boog sama bopp mun naa ne ñu teg la ay charge eh, sanction yu diis. moo gën sax ñuy def peine de mort quoi peine moom vraiment dafa nekk loo xamante ne ni moom doy na waar quoi ku rey ñu la moom man moom vraiment nekkul loo xam ne ni ànd naa ci quoi vraiment su ma sañoon du am quoi. ah peine de mort ah man su ma sañoon moom nguur gi indiwaat ko mais tamit nekku na ñun luñ bëgg lay nguur gi di def nguur gi moom lu ko arrangé rek lay def. waaw suñ sañoon moom peine de mort ñëwaat parce que loolu moom suñ ko defoon yaakaar naa wàññi rent bi si mbedd mi quoi ak si kër yi waaw loolu moom su ñëwoon dina baax trop. waaw mais ku rey dañ ko war a rey parce que yàlla ñun ëpp ñu yàlla yërmande yàlla moo ñu ëpp yërmande te moom yàlla moo ni ku rey te tay ko dañ laa war a rey ñun ëpp ñu yàlla yërmande pourquoi nit rey bon après ñu tëj la quelque quelque ay ñaari at ñetti at ñu àtte la am ñu jug fee naan dafa am droit dafa am cër mais ki mu rey amul droit ki mu rey dafa am droit dafa am njaboot dafa am yaay dafa am papa dafa am jabar dafa am ay doom est-ce comprendre nga boo reyee bon population bi ñoo war am la rek ah bu nit reyee def loo xamante ni da ko tay mais balaa police di ñëw nan la rey. merci beaucoup waaw. sapeur ñee jël ñaar ñëpp yóbbu ah. loolu bu ñu ko war a def dafa yàgg franchement bu ñu ko war def dafa yàgg parce que nit ñu sonn nañ ñu bëri ñemeetu ñu génn yenn heures yi agression yi bëri na rey rey yi bëri na kenn kenn comprendre tur nu mu dem demee nii. loolu la ñu war a indi peine de mort ku rey ñu rey la dëkk yi bëri léegi looloo fa am mais tant que ñu ngi seetaan lii ñii dee dinañ bari lool parce que doy na waar daal. merci beaucoup. de rien ñoo a defaru nag. ña nga ñëw si ngoone mu defar. amul benn rek dal na ma dama jël exemple comme sama bopp ci li may yëngu nii muy kalando yë yóbbu naa benn waay ci monnaie rek 200 francs may wecc benn waay sama loxo laal ko tax mu génneel ma fetal euh, mu ngi xew woon SDE. fi nga xam ne fa la ñu reye woon taximan bi fetal la ma génne mais teewul it dama ko affronté mais affronté naa ko ci li nga xamante ne lu ñàkk pexe la parce que bu fekkonte ne dama teel daw foofu mbaa ma teel a excusé su boobaa day ëppi loxo moo taxoon dès le début ma affronté ko mais teewul it nekkul woon sama sago carrément parce que fetal moom buñ ko génneelee doomu aadama te yorul dèjà xel du dal mais nag lépp sant yàlla la parce que mooy li nga wax ne insécurité moo tax sax ma jox la exemple boobu mais nag nañu sant yàlla bu baax te xam ne yooyu moom vraiment mooy loolu nañu gën a doole ñaax ñaaxante ñun rek suñu biir incha allah sensibiliser woon ci ba nga xam ne day jeex. ngeen jëf yaakaar naa ne nii lañ leen ko waxee woon ni ngeen ko doon gisee nag ñu ngi woon fii si rond-point Liberté 6 ndax da fas yéene woon nag waxtaan ak askan bi comme ni ngeen ko doon déggee ñuy waxtaane li nga xamante ne nii moo di insécurité bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci réew mi jamono yu ñu toll nii d'après nag ñi nga xamante ne tàllal nañu leen suñu micro ñii dañu dut baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoo di parent yi nee nañu kat parents yi ñoo yaratul seen doom yi loolu moo tax reyante bi daal di bëri si réew mi waaye tamit ñii nee nañ xale yi déegi ñoo yaroo ak seen i sago loolu moo tax ñuy def lu neex ne nañu ngóor gi war nañu tegaat li nga xamante ne ni moo di euh, peine de mort ku rey dañ la war a rey yaakaar naa ne yéen tamit am ngeen ci seen i xalaat bu ngeen amee seen i xalaat rek commentaire leen ko ci suuf ndax kat dama koy faral di wax saa su nekk seen mbégte mooy suñu yite ba tax xew-xew bu am dañuy préféré ñun waa Wassare société ak waa Dakar Midi wàcc ci terrain bi gisee ak askan bi tàllal leen suñuy micro ñoom tamit ñu wax ci seen xalaat ndax kat yaakaar naa ne ñëpp am xalaat loo xamante ni war nañu ko wax yéen lañu fi nekkal merci beaucoup Abou sama caméraman bi jox leen rendez-vous bu beneen yoon jërëjëf